Se o do Eh, temps saa yu dafay sorti rek coow li dafay dafay bari ci mom moom eh, rawatina nak jamono ji nga xam ni eh, sa dernière sortie euh, je pense que moo nekk à la une de tous les réseaux moo nekk à la une ci journaux yëpp nga xam mom moom moo di génn mu melni cadeau yoy Serigne Sali waxon la ne la dëgg ak lu metti metti wax ko tan nga nek ci dëgg mo waral cadeau yoy nga yëkëti ko tek ko ci ki di Ousmane Sonko ak soxnam sosu di ana xam nga da nga wax benn baat boo xamante ni mooy dëgg. moomuma ko moomuloo ko yàlla suñu borom moo ko moom muy kàddu nag bu gàtt waaye bu diis ndaxte ñu ko ñemee bariwut ndaxte dafa metti bañ na ba olof Njaay ne dëgg kaani la ko ko tox tuuf mu toxoñu su Ndour waaye ci benn waayam ne ku ragal a wéet bul fëgg buntu dëgg mu teg ci su ndox rek doon jóg eh, taxa doon xarit eh, kon ndox du togg jën su jege rek doon taxa doon xarit jege nit su doon ki la jege rek mooy sa xarit kon ndox du togg jën kon kàddu boobu dafa doon benn kàddu boo xamante ni soo jëlee sa àdduna nga ne dama sàmmoo pour jël li jàppal ni ko faa yoo waxee rek coow dina bëri ndaxte ña cay ànd du bare moo tax sundur waxoon ko da nga ciy wéet donc ña ci dul ànd nag ñooy indi coow li mais li am solo maanaam mooy keroog yow mal xiyaam benn baat moom muy baatu dëgg ndaxte dëgg su amul woon solo du ñu jël dëgg teg ko jël fen teg ko waaw ndaxte tey soo tooñoon ñi dem di àtte dañuy xool kan moo nekk ci dëgg duñu xool ku nekk ci fen kon nag comme dëgg mooy njëkk te mooy mujj balaa may njëkkee ci fen après di mujjee ci dëgg te maa njëkkee ci dëgg mujj ci dëgg looloo tax ma choisir dëgg di def li may def ginnaaw nag nee nga sa dernière sortie man moom du sama dernière sorti ndaxte. <laughs> sortie bi nga mujj def jamono ji bu yëngal réew mi. xam naa ni moom journal people laa doon def yàgg naa ko def parce que balaa boobu am na ba ma defoon annoncé benn alerte mu jur coow. xëy na nag bii moo ëpp coow parce que nit ñi ngi ciy wax waaye man ba ma ko waxee laa ci pare ndaxte man nee naa leen su ma taxawee wax dara wax naa li may wax mais juste pour indi benn précision rek parce que tey dafa am benn kàddu boo xamante ne dama ko waxoon te kàddu boobu je crois que ba tey jii mi ngi fii man Tange dama taxaw ne leen Ousmane Sonko mu indi vie privée am ci place publique je le respecte bokku man musuma dugg ci vie privée moo ko soxnaam sama yoon newu ci. waaw donte je naa bu baax ko ko parce que magam bu góor maag ñoo station de 2009 ba 2012 magam bu moy responsable communication Grand Théâtre defandoo nañu lu nekk ci people ni 2010 ba ñuy am scandale Bir Nirvana ka scandale magam ju joju jël

mais nag dafa am benn kàddu bu ma yëkkati site internet yi am lu ñu bind man lii laa wax. information bi ma lay jox nee na bés bu dee suul sa buntu kër su dooleen gi ngay njëkk a

information bi nga ko xamee ban at ban ban moment la woon. dama ne dama ne Anna newul sa kër dem na yoonam. site yi nag ñoo bind tas na divorcé na divorcé wul. nit nag mën nga sëy ak nit mu jël ay bagages am dem këram toog fa ñaari at. tànk mayoo ko baat tasu musuma taxaw ne may nga ko baat. dem na yoonam laa wax. information bi ba ma koy am yaakaar naa ni si lendemain sorti Adji Sarr la. ba ma ko amee tamit dafa xëy dem. bamou mu ciow coow li bari ñu négocier ay 18 h la ñëwaat dugg ci kër gi. ci même jour bi. bamou mu dugg see li fa xew xamna ko bamou ñëw da daa dugg ci bir négam tëju bamou mu ñom ñu tok ci saal ba di wax pourtant yor naa site internet yor naa lépp mën ci wax manki téeméeri sorti mëna ci wax Maria invité na ma Seneweb wax ma ci wax Ousmane Sonko waxuma ci parce que waxul vie privée sama yoon newu ci duma ko lijjanti c'est un gars que je respecte beaucoup qu'on se dise la vérité bamou indé vie privée nak bëgg a sëlmal askan bi ndaxte su waxee loolu ëllëg ci biir ñi ko doon wax dana kon askan bi dañuy waxuñu dëgg alors que li askan bi xamoon mooy dëgg waxuñu nag fase na ko voilà li ma wax nag dafa am fu leer fu ma ko teg bi ma ko waxee tamit nee naa ko su dee li ma wax amut defal vidéo bu mu def vidéo man gis naa ñu bari di naan mi ngi këram moo servir diw añ moo servir ndox billaay wallaay téléphone yomb na Tange Tandian yaa ne ana Diamanka génn na kër Ousmane Sonko ana foo nekk maa ngi kër Sonko Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen a moom réseaux sociaux yi wane ngeen ko yéen moom réseaux sociaux yi wane ngeen ko bu baax a baax samedi laa def émission dimanche gisuma leen di gisuma leen mardi gisuma leen ba tey ñu ngi mercredi muy 4 jours looloo gën a yomb parce que change li mu wax dëggal wala du dëgg li ko loon lu yomb la parce que lu xew ngeen woote point de presse teg seen caméra am seen site muy jot na. léegi presse bi sax doyatu leen seen sit ngeen yor yor seen téeméeri réseaux sociaux bi ma ko waxee tamit pare naa ci ah, dem naa sama yoon léegi nag ay niam ñoo ci nekk di expliquer dëgg la du dëgg ñii naan moo doon servir ceeb ak moo servir ndox sama yoon newu ci man information laa joxe te li tax ma joxe information bi moom moo toog place publique wax dara ba pare jël kàddu bu ñaaw teg ko ci kaw procureur Abdou Karim wax na ko nee na ko est-ce que yow ki la wax loolu

est-ce que j'ai ngeen Tange firnde. est-ce que nekkul tamit nag euh, Tange firnde boobu nga laaj Ousmane Sonko du indi incitation moom tey actuellement muy def coûte que coûte pour dem jeli ndaw ci filmer ak mom photo ak moom. waaw xam nga loolu yeb mën na nekk nit ki dem na nit ki demut man luma bëgg xam dama koy xam ne je suis un journaliste people d'investigation amul luma ma ci aduna waxuma la Sénégal de ci aduna luma ci bëgg xam dama koy xam té tay police d'investigation dafa femme. da femme sen ay réseau am sen ay sources loolu yeb mais beaucoup ci avancer parce que frère ou Anna de Babacar sama xarit la téléphone bon la famille avant tout que mhm. je xam je veux samedi ci que je nañ indi wala buñ indi ndax négocier négocier mais négociation ñi ngi ci que négocier. négocier actuellement. négocier pour dem que je homme politique marabout turam S la commencé. ñoom tudd SMS. Koko sëriñ la politicien la. Amna benen professeur sociologue turam F la. S S. te tey ay signes nag nga may jox doo ma jox tur député la. M la F. man ci koko sax la xamee ni. député F. Mom, Kenen la ta haritu bon man ki ma diapo. muy député F. Mam Diarra Fam don xarit ci Ousmane Sonko. man daal la wax. ñooñu ñëpp dem nañu négocier ji pour indi ko lépp négociation bi pour lan la d'accord na may ko baatam mais nag na ñëw ci këram ba pare mu régler situation politique am yoon may na ko ko man li may wax wax naa ko laaj naa firnde la reste sama yoon newu ci. maanaam su ma comprendre mooy jamono ji ay négociation moo am euh, pour ndaw sii di ànd delluwaat kër Sonko ba mu régler situation politique am bu paree dina ko may baatam. moom kay su duggee rek mu won sénégalais yi Tange li mu waxoon photo vidéo gars yi wax ko ñu ne non Tange waxul dëgg après mu may ko baatam ci suuf kooku génnaat dem yoonam xam nga su boobaa Tange su waxtee kenn du ko gëm. kon vidéo bi ngay laaj nii mën nañ ko xaar à ko laaj samedi. gisuma ko dimanche. gisuma ko lundi. gisuma ko mardi gisuma ko mercredi te pourtant réseaux sociaux yi ñoom ñëpp a ngi fa de. vidéo yëpp a ngi fa di attaqué rek di attaqué. Mm-hmm. voilà kon kay jeex na. ñu bari nee nañ euh, euh, Tange dafa am lu mu jappal Ousmane Sonko wala sax nit ñi dañu ko yabal euh, ñu bari sax ñu ngi tuumal ni état bi ñoo la daal di fay yabal la ci Ousmane Sonko pour nga yàq ko lu melni ni ngir wa Pastef ak ñiko ko bëgg genn ci mom ndax nak ay ciowal jigen peut-être mën nako yakal lu bari. xam nga Olof Ndiaye dafa am lu mu wax man je suis un journaliste Ousmane Sonko est un politicien libre d'être un politicien c'est un Sénégalais. lu ko neex choix bu ko neex mu def ko pap alagna lum fi yakul nit ñi amul pap alagna lum fi yakul état makissal amul pap alagna ñaata révélation la fi def ay investigation ci ay dossier yo xamanteni ni nak la muy ay dossier sensé yo xamanteni amul benen journaliste bu ko am et pourtant pap alagna tok na Sud FM ne Ousmane Sonko suma xarit la dem na ba Dakar matin balaa muy tudd Dakar matin site bu mu njëkkoon nekk en 2017 ñu ngi toog Paris El Hadj Mafali Kane yaa ngi may dégg ñun xam nañu site bu nekk kan moo ko enregistré on a si Ousmane Sonko moo ko enregistré boobu Ousmane Sonko eggul fii day def ay révélation pourquoi waa état bi toog mësuñu toog ñu ne Pape Alé Ousmane Sonko moo ko yónni pourquoi tey waa Ousmane Sonko toog ne état bi ñoo ma yónni lu tax parce que kon ñoom dañuy yónniwaate ñoom dañuy yónniwaate nit ki nag nee nañu li ngay def rek moom ngay seetal say morom. man ce que j'ai fait wax naa ko je crois si vidéo bi point de presse la yana mar marre moo ko organisé di un mouvement citoyen ay activistes ñu japp sen ñaari ñooñ donté fauté nañu def nañu flagrant délit mais nit ki soy and ak mom da ngay and ak mom ci ba muy neex and ak mom ci ba muy métti tolof tolof dal na len amna ñu plein droit def ben point de presse wolni ke ñi ngi soutenir ñooñu comme man mi ni ma len di soutenir ni ma ko waxe woon rek c'est des gens yo xamanteni musuma len xam ci lenen Simon je le connais nit ku yaru la nit ku am diine la nit ku respecte nit ñi la xeyna nak joom na nit ku dul joom amul man li len dal man na ma dal man na dal kenen man na dal kenen sama pire ennemi man yene ma ko prison ñi yam ci point de presse bi mu yam fofu mais mon moo individu indi vie privée ba pare di accuser un procureur de la république mais le procureur c'est une institution Si ñun suñu une ba suñu doomu des di suñu institution suba un étranger su saagee une institution est-ce que qu'est-ce qu'on va dire il faut d'abord nga le Sénégal respecter Sénégal man je veux bëgg Je wane xam nga souvent damay dégg patriote un patriote c'est quelqu'un qui aime son pays c'est quelqu'un qui aime sa nation c'est quelqu'un qui défend les couleurs de son pays mais tey un patriote faut toog saaga say institution justice Bahoul. assemblée Bahoul. Li, Bahoul. Li, nangam nga saga saga international bi di mais qui va respecter le Sénégal je crois que c'est pas un esprit de patriote donc euh, nit ku nekk am nga xalaatam am nga gis gitam tey ni nga toogee ba gis sama sortie nga xalaat ni Tange bi war naa koo waxtaan ak moom man it noonu laay amee sama xalaat toog def samay analyse def samay chronique je crois que la vie ça se résume en une simple expression bu ñu intimider vous voulez nous intimider vous nga li xewoon ci jamono Hitler jël une minorité de nit ñi terroriser nit ñi loolu la sénégalais Japon Vous xam nga dafa am peut-être saga, dafa lay ci Ou wala ku dem ci réseaux sociaux def vidéo dafa diis ci Quand te dafa yomb suba dépense dara yor sa téléphone def sa live des gens ñu am jot def am gens qui man nee naa leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa jokk amul lu mu déggul te moo doon gën di mbindeef su yàlla su ko neexoon li muy dégg yooyu yëpp mu teggil ko ko mais bu yàlla su la wàccee ci suuf suuf ci la combat ji commencé kon da ngay dégg li la neex dégg li la naqadi jàppal ni que nag oto mbalit bu taxaw fële wala pollu mbalit kenn du xool di ko lijjanti lo wax ci Tange dafa fekk Tange romb la oto ba ci kanam lañuy ñuy corné sama nekkon ci ginnaw suma ma sax ay ginnaw kër la leen di saf mais ndagam suma ma da leen di jaral ñuy yuuxu yàq sen connexion jël ay vidéo diko def je crois que c'est peine perdue li fi itilaire defoon dootu fi amati ken mënu fi théoriser ken Sénégal santul Sonko Sénégal santul sal Sénégal santul gay Sénégal santul mbay Sénégal ñun ñëpp ko bok on est 16 millions d'habitants

ba ñu xooli jee huit commentaires yëpp benn adresse IP la maanaam benn iPad bi commenté benn boobu moo commenté wul yëpp ubbi sa compte bi Fatou Ndiaye commenté tëj compte boobu ubbi Aïda Sarr commenté tëj compte boobu Djibril saar commenté ñu foog ni Ousmane Sonko dafa am. nag dañ koo yàgg jiiñ kii di Ousmane Sonko wax nañ ne ñi eh, maanaam euh, propagande bi am ci réseaux sociaux yeeg coow lu bari ñuy dégg ci réseaux motuñu sax cent personnes yoo xamante ni ñoo koy def ay benn nit ñooy yor ay vingt comptes lu rumeur yu yàgg daw la ci biir Sénégal. waa dodo rumeur la woon man maa lañ koy confirmer démb ñun on l'a vérifié. gis nañ ko bu baax ci benn waay bu tudd Issa Diène adresse IPM traqué nañ ko ba xam palla fi mu commenté sax xam nañ ko immeuble bi mu xam nañ ko. donc la ñu jàpp ni Sénégal nit ñi dañoo yeewu suñu foogee ni ñoom ñoo fi nekk mën a terroriser nit ñi ñi ngi nax seen bopp c'est une minorité man Tange Tandian yalla bindogul mindeef ci kaw aduna ci souf bo xamante ni mën nga ma terroriser wala wax ma luddul dul dëgg wala bëgg ma manipuler ma ci nangu sama bakken bi joxe naa ko addiya sëñ Saliou Mbacké ci suma ma lo xamanteni du deug te newu ma wax je suis prêt à mourir à n'importe quel moment et je suis prêt à affronter ben mbir ma ñor mooy le Sénégal arrêtez de dire Macky Sall Macky Sall à chaque fois ñom ñu tok di accuser Macky Sall pourquoi ñuy tok di naan Macky Sall moo ko état bi moko yoni mais xala état bi dafa nek di yónniwaatee ils n'ont qu'à arrêter nit ki li ngay def bul ko tuumaal doomu adama tay quand vous dites que vous êtes des patriotes ñun tay dañu ne dañu ne Sénégal bu bess patriote lañ wax patriote moy kan moy ko xamanteni dafa am lo liggéeyal sa dëkk un self made man nga dem mais patriote ñoo xamanteni saga ci réseaux sociaux yi xaste wax te yoon so dajé ak Tandian lo koy wax mais grand jaajëf waay. bi bi nga waxé légui grand jaajëf nga koy wax te so togué ci réseaux sociaux yi ngay saga bi may ñëw fi dañoo bind fi saga bi ñu ma fi bindal. dañoo bind fi Tange góor jigen la dañoo bind fi Tange day xéssal dañoo bind fii Tange moo sàcc or xaw ma nangam sangam États-Unis ak nangam ça sert à quoi. nga jàpp ni loolu yëpp dañ koo teg sa ndodd rek juste pour déstabiliser la. non jàpp ma ko yow sa bopp xam nga ko Ouzin Keita audio boo xamante ni monté nañ ko depuis combien d'années bëgg a pied Ouzin su ngeen dégloo audio bi mais ñuy déglu dañoo yeewu ay waxal Tange nangam waxal Tange nangam mais def naa émission man si sama journal People tegal leen lépp ni mu demee kan moo def audio bi bëgg nañu fexeel Tange mënuñu fexeel Tange

Comment commencer la salut Tange je m'appelle Noa j'habite le village de Malefara en Casamance mm-hmm. j'aimerais sérieusement te parler pour ton intérêt merci mm-hmm. beaucoup mm-hmm. mu mu envoyez un message je m'appelle Noa village de Marifara en Casamance mon numéro c'est le 77 440 30 84 Par bi ma même man tok na six mois soog gis message bi client la le 7 décembre 2020 17 h 52 kagn la ko tontu jox ko sama numéro whatsapp euh, le 3 août 2020 minuit 53 bi ko joxee numéro whatsapp bi bon man comme je suis un homme public woo ma ma déglu ko mu man de Mali Fara laa dëkk dañ don sétane sa émission 2STV célébrité en ligne ma tok ak ben pa bu am xam-xam dégg sa baat ne ma eh, i de ku am daraja la waaye foog ñu defar yaram bi foog ñu jàppale ko sang ko pour mu toog bon bi ma ko waxee ma ne ko waa d'accord merci mu ne ma pour nga xam li ma lay wax dëgg la dama lay booleek ay nit dama lay jox ay numéro téléphone nga laaj leen wool garde corps Aliou Sall. moom waa wax loolu wax. boobu la am numéro. pour ñu wax la ne xam naa. même numéro garde corps Aliou Sall même numéro la la jox. moom ma ko jox ngi nii ma déggante na ak moom ngi nii garde corps Diagne bi ma ko joxee ma woo ko ma ne ko da nga xam mu ne waa si xam naa ko sama benn grand bu baax la Casamance la nekk mu joxaat ma beneen numéro directeur de société bon ñu vérifié ko après ñu toogaat mu ne ma Tange foog nga ñëw Ziguinchor mu insisté quoi ma toogaat xalaat ma ne mais attends man su ma soxlaa sëriñ man maa war a insisté woote mais moom moo may woo chaque jour garaawul ñu toogaat xëy mu ne ma da nga may yónnee cinq mille francs non deux mille da nga may yónnee deux mille francs soo ma yónnee deux mille su tisbaar jotee nga ànd ak jàpp cinq nga woo ma ma jël cinq mille yónnee ko Orange Money tisbaar jot ma ànd ak jàpp dix-sept heures ma woo ko mu ne ma paa bi defal na la si ndox la la seetalee yow dafa am ñu lay xeex ki lay xeex benn nit ku am tour la artiste la su dul artiste tamit day téye micro da nga doon liggéey ak moom déglul bu baax danga nekkoon ak moom jabaram dafa xees yow ak jabaram da ngeen amoon liaison bu mat yow ak jabaram da ngeen doon waxtaan mais benn instant dañ la gis nga ànd ak beneen artiste boo xamante ni kooku tamit yàlla may na ko tur papam artiste la léegi ñoom dañu mer loolu kooku bay wax am na doom bu góor doom bi tur bu sell la tudd déglu ma rek tur bu sell la tudd ah en tout cas daal tur bu sell la mu demaat ba ci biir mu ne ma ñooñu ñoo lay fexeel ñi ngi def n'importe quoi donc foog nga ñëw fii ñu sang la kërti kërti mu tourné waat ne ma doom jooju su tuddul Mouhamed dina ma jaaxal ah. ñu tourner waat mu ne ma fan yi passé amna ben audio bo xamanteni enregistrement def nañ ko ci yow di la bolé ak benen way kat waaw way kat bo xamanteni xawul wér waaw ñi lay tuuma la ay affaireu ñaari tour nee ma vidéo bo audio bobu ben xale bu jigen bu nek seen kër papam nekkon fi ministre waaw koku moko def juum na ba pare koku mi ngi liggéey ci ben télé bu mag légui pour mom suma joxé information dama nan mais ki lu wax deug la junj doy na ban xaram ma taxaw nee na mu ngi wax Waly Seck ak ki di Pape Diouf moom moo wax man sama yoon newu ci bi mu waxee ba pare ma am ku ma ci waxtaanal mu ne ma tey ci listaxaar du juste à cent pour cent foo ko xamee ma ne ko Facebook mu ne ma dellul Facebook nga xool ma dem Facebook xool ñaata ami en commun la am ak moom muy ñaari ama en commun kenn ki di Babacar Ba mi ma lay wax di frère u Anna Diamanka jabaru Ousmane Sonko keneen ki di beneen producteur du ma tudd turam ma xool discussion mag Babacar yàgg na ma xëy woo Babacar ma ne ko da nga xam diw wala ma xaw ma ko de Facebook rek la ma envoyé message ma xool beneen producteur bi ma gis ni que seen discussion dafa récent ma toog am sama beneen paa boo xamante ni ma woo ko expliqué ko mun ne ma jox ma lépp ma jox mu ne ma bàyyil ba guddi ma wax la ma xëy mu ne ma kii de bos boo fa demoon dalay sànq fekk bi mu defee di saxaar pare nee na ma jëndal ginaar nga togg ko ceebu yàpp nga jël ginaar yi teg ko ci suuf suul ci ceeb bi léegi nag soo ko defee ba pare suba fexeel nga jël premier avion ñëw Ziguinchor soo ñëwee dinaa la jox benn garab boo xamante ni dangay taxaw sa kër ba miir bi kawe nga talal sa làmmiñ bën na ko dugal ko ci mm-hmm. nga suul ko nee ko yow fu nekk lañ lay dégg mu mm-hmm. am sama paa bu garaaw bu ñu fàttee ni que nag doomu saraxule la tànjam Fatama amali wuri bàmmi kame surtout xaasunke la Moussa. Ah, xeex bi yemul sax si si si zaaya dafa dem ci baatin. surtout. xaasun ke la Moussa Koulibaly mooy sama maam surtout Tim ndooy la ma ca baan yi am parti ci lébu surtout Walker Seck la ma ca Gendaar sama paa bi xool ko mu ne ma ñii de dañoo bëgg a tëj sa làmmiñ ba faw ba dootoo xeeñati dara ci àdduna waxuma ko dara si laa dem tontuwuma ko bloqué ko maa ko bloqué de mooy message yooyu nga doon gis bi ma ko bloqué léegi bi ma ko bloqué le 18 le 19 août 2020 Tanja, je suis un fils manding, je vois jamais, je mens jamais. Je suis allé en brousse, circonscription masculine, manding, pendant six mois. Si je parle avec une personne le matin, s'il change le soir, je sais les bonnes personnes ont des ennemis. Mais ce n'est pas important. Je vous respecte et salue. Salut Tanja. quelqu'un t'a donné une, de mauvaises informations sur ma personne. Mais rassurez-vous qu'un enfant manding ne connaît que le bien ou bien du bien. Choukran. Ba légui tontou mako. Mom ci bopam mi waxon lolu mo tourné wat di envoyer message. Mom ba légui waxuma ko dara. Bi lolu amé paré na ci. balu yàmbu yaaw lañoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu baari